Mhm. ni nga ko defee noonu nañ koy defee di ko jaajëfal bu baax a baax parce que déjà euh, de loin dañ ko doon suivre mhm. mais euh, li ñuy gis que mooy femme bu dal la mhm. euh, ku professionnel la ku doon def liggéeyam correctement bu demee ci anam yi aussi voilà dafay wane que voilà àdduna noonu la di nga une vie réussie souvent dafay dañ dañ koy natt ci façon bi ngay demee voilà voilà te macha allah dem bi moom dem bu am solo la li mu bëgg rek yal na ko ko yàlla defal te lépp lu mu ragal aussi yal ko yal amiin voilà euh, Pape Sané. Euh, ni nga ko def gannaaw ni nga ko waxee ak euh, Awa di déjà sargal ki nga xam ne mooy sunu jigéen c'est vrai que fii nañ ko fekk te wax fa dëgg yàlla ku ci nekk ci ñun ñii ba ba nga egsee dalal na la wax ak yow jox la sa gëdd jox la sa sa waruwaay. donc euh, Thiaba moom euh, man mbokk la mbokk la parce que mais mbokk la ba nga xam ne fii la ñu xamante wal fa nekk ay mbokk nañu parce que Euh, seen kër rue 11 ak sama kër maam ñoo jàkkaarloo woon. Mhm. donc ma fa doon ñëw vacances di dem seen kër. mais musuñu musuñu xamante il a fallu ñu daje fii Walf. xamante ni que voilà soo nga xam ni que ndëkk na non seulement ay dëkkandoo nañu woon mais ay mbokk nañu quoi donc euh, ñi koy ñaanal l'instar de Awa. Mhm. fa mu jëm ak euh, la mu fa uti yàlla sunu borom yombalal ko ko. amiin ko fa ay buntu xéwal quoi. Mhm. waaw amiin amiin am na solo bu bu baax a baax di nuyu aussi suñu xaritu taximaan yi yi euh, boo duggee seen euh, seen rajo yi dafa mel ni sax dañu signé partenariat ak euh, Walfadjri ñoom ñëpp jamono ji keppaar gi nañuy déglu dañ leen di nuyu bu baax a baax di nuyu aussi ñi ne ci ci tataay